salaamaaleykum sama gars yi maa ngi bëggee ñëpp di bëggee ñëpp bëggee ñëpp Sénégal gépp laay bëggee naam seen eh, di bëggee waa diaspora bi di bëggee waa diaspora bi ci vraiment seen taxawaay tu vois ñoom Issa Diène ñoom seeni gars yi ah chapeau nag chapeau à Khady eh, Mahécor tu vois moom mi def discours bu nice boobu si Adja kii tu vois vraiment ça a été eh, pertinent tu di bëggee tamit sénégalais yi ne fii ñi nga xam ne tey jii maanaam ñi ngi assister président Sonko ci. Euh, étape bi muy étape bu cruciale bu muy muy bu muy bu muy traversé nii sénégalais ñi ngi wane seen cofeel tu vois ñëpp a ngi koy jàppale tu vois di jàppale di di gërëm tamit gaa yi xam ne tey euh, dem nañu këram muy ay Mame Diarra Fam Y'en a maar tu vois Y'en maar maa ngi ni bëggee quoi vraiment euh, Barthélémy Diaz gaa yi fa dem yëpp di supporter président Sonko gaa yi ci mbedd yi booy doon daxante policiers yi tu vois ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp ak ñi nga xam ne tey ñu ngi ñaan ah ñëpp maa leen gërëm ñi xam ne ils se sentent mal dans leur peau sama genre nga xam ne tey jii maa ngi trois jours sanguma je me pas j'ai pas envie de manger tu vois damay xuloo di wax di kii je confus léegi man j'en suis venu à une conclusion mooy maanaam tey jii man je pas ma je je vais pas m'avancer sur un dossier boo xamante tey jii c'est un dossier pendant parce que tey jii boo leen xoolee tey jii la sortie de monsieur monsieur le président Ousmane Sonko wax na ci lépp te li mu wax mooy maanaam tey jii euh, les aspects maanaam saillant quoi maanaam li mënta ñàkk la la leeral lu wax lu tax muy dem mu demoon foofu ah joxe motif bu tax mu demoon fa ak yooyu noonu mais duggul ci fond sujet que levé gu ñu immunité parlementaire am euh, amul entendre ñu ko donc comme que ñun ay chroniqueur lañ ay activiste lañ tu vois on ne peut pas euh, mettre la charrue avant les dugg fii tamit di wax wax wax ni yenn wax yom ni tey jii mooy loolu quoi ñëpp xam nañ ne complot am na tu vois mais quand adverse bi ñoo ngemb gel bi ñoo ñoo ñoom ñoo ñuy entendre ñoo ñuy àtte Sonko lu mu am mooy lan Sonko leen nag la am mooy lan parti Pastef la am ak euh, ak waa Sénégal tu vois mais wàllu teen la bu demee dik wala mu dem euh, Colobane wala mu def fu fu mu mën a dem euh, terrain ennemi lay nekk parce que ñu koy entendre tamit mooy loolu parce que ñi ñu war a àtte ñooñu ñoo comploté contre ñun léegi ñun pour ne pas ñu jéem a wax loo xam ne day dugal suñu suñu leader wala yooyu noonu nañu nañu nañu xaar nañu xaar rien de presque nañu xaar. te avec le temps lépp dina édifié wu ñu mën a jël pas a pas step by step mais ñu bañ a dugg ci ay commentaire wala yooyu noonu quoi parce que tey jii am na commentaire yooyu def rek ñu bëri dañuy jéem a ñëw yóbbu la fenn ne ah yow lii wala yaa wax lii wala noonu quoi nañu gàtt suñu làmmiñ ñoom waxuñu seen côté ñu ne nañ def tekk suñu côté quoi tu vois nañ def tekk suñu côté on a gagné nañ benn benn benn bataille muy lan assisté nañ dem nañ cité góor góor góor gi assiégé fa wax na suñu président duñ ko yóbbu duñ ko sacrifié duñ ko yóbbu au pâturage comme ni niñ def Khalifa Sall wala Karim Wade te nag Sonko dafa bokkul ak ñooñu bokkul ak ñooñu d' accord ñooñu ñoo bokk même euh, victime ñoo bokk même euh, comment dirais je euh, même même kii ku leen yi même ils même bourreau mais les victimes ne sont ñooñu peut être def nañ loo xam ne tey jii jàppee nañ leen ci mais Sonko deful loolu. Sonko bokkul ak ñooñu quoi registre yi bokkul tu vois seet nañ ko ci xaalis ba sonn jàppuñu ko tey ji am nañ benn faay mooy li ma wax man leen euh, ñun on a l'habitude euh, ñuy di riposter tey ji dañuy jàpp ne ñoo suñu combat Ousmane jël coup léegi day danaan tàmbali dóore ñu door ko comme que jël nañ coup nag dañu war a wane suñu force wane suñu force bu ñu jëlee coup ni ñuy riposter te j'ai bien aimé nag mooy première étape bi mooy yëngal nañ Sénégal wane nañ ñun tey ji ñi ngeen daan jël di leen bogo bogo duñu ñooñu donc loolu c'est un message fort ba quand adversaire bi xam nañ ne kat ñoom seen plan B ñuy jéem a fu mu ne nii mais xam nañ ne boobu du jàll parce que Sonko tey ji maanaam am na ay Baye am na ay rijaal quoi yaa ngi dégg donc foofu foofu laay waxee maanaam ñu def tekk rek bañ a wax emporté wu di def nii tey jii boo xoolee ma ma dugal ay vidéo di jéem a dugal pour kii du question divertir wala changer objectif mais maanaam tey jii nañu tekk indi wane nañu un signal fort répondre nañ positivement am nañ satisfaction mais léegi li ma bëggoon tey ji mooy maanaam gars yi ñu def tekk bañ a nekk ci réseau yi di wax loo xam dañuy yóbbu wala mu indi ay discord wala muy semé ay kii parce que tey ji démb def naa live wax benn opinion rek mais parfois gars du ñu déglu wala du ñu perception quoi da wax rek ñu déggee la feneen te peut-être mooy loolu léegi pour ne pas tomber dans l'émotion wala de teel a dem nañ la teg bu ñu wax loo xam ne tey ji ëllëg dañuy kii parce que wax dafa garaaw te vaar dafa am donc boo fi nekkee activiste wala nga nekk dara waxee dënn wala nga def dara tey ji wala nga wax loo xam ne tey ji peut-être ëllëg bu la ko gaa yi tegalee li koy li mooy wax loo maîtriser ma maîtriser mooy sama ku jub la nit ku bëgg Afrique la nit bëgg Sénégal la Ousmane Sonko ñu baal su violé su su violé woon vingt jigéen vingt jigéen ci même soirée moo gën ñii suñu politiciens yi fi ne moo gën ivrogne yii fi ne moo gën ñi nga xam ne tey ji nii Euh, parce que tey jii ki am conscience man gars yi conscience ni ñu def doomu jàmbur ji di ko sacrifier di ko tuumaal loolu ko am conscience ak ku nit mais day ñoo xam ne tey jii c'est des soulards des drogués des gens yoo xam ne tey jii ils sont dans ils sont dans nit donc man Sonko bu ñu woon na tey abusé na trente filles wala cent fii ci benn soirée man Sonko moo ma gënal ñooñu noonu Sonko moo ma gënal ñooñu noonu donc loolu laay wax gars yi ñu daal ñu tekk tey tu vois du ma si prononcé wu waat tant que amalu leer wala ma jot ndigal wala dara quoi mais du ma ci wax li ma mën def rek mooy lan mooy lan gars yi keep believing keep trusting keep fighting nañu continuer di gëm suñu leader nañu continuer di gëm suñu leader jàppale ko ak suñu doole fu mu ñu ko mën a jàppale te nag ñu am les bouse cousue yu bañ a def yi ne benn Malathion tey wax gars yi ñu ko def tey ji maa ngi gis benn policier bu ñu jël ñu sànni ko brique dóor ko image yooyu war nañ ko mën a tey ji di ko diffuser ko di ko wane nii quoi man bëgguma ñu koy diffuser parce bu dara bu ko ñeneen leen defee sax dañu naan waa Pastef ñoo ko def quoi te li ñu soxla tey ji euh, ngi jégalu su ma xew naa fi dara lu dëng di wax ne mooy loolu quoi la chaîne mi ngi continuer Malathion toujours stay loyal bu Sonko bàyyi politique suba ma bàyyi wala yooyu noonu quoi mais man ma am yaakaar gi yéene gi ma am si euh, moo ma ci doy su ma duggee bay dugg ci politique yi wax Ousmane Sonko moo ci dugal yàgg naa nekk spectateur parce que gisuma kenn ku ma lu ma doy gan gi moo tax ma ñëw di rey sama bopp di wax di def dara donc man moom la su bàyyee bàyyi naa amatul leneen d'accord amul d'accord parce que idéologie la nii d'accord na Diomaye ñëw na keneen ñëw man Ousmane Sonko moom laa gëm mooy sama model bu keneen ñëwee nag mën naa compatir mën naa simp compatir wala te yàlla bu keneen ñëw man Ousmane Sonko bu buñ ko accusé woon dóor kat mandat de dépôt vingt ans bu ñëwee man moom laa gëm parce que li ma ko toppee maa ko xam donc complot yu ndaw yi gars yi di yàgg nañ ko def nii complot la ñu xam nañ ne complot la tu vois ñëpp xam nañ ne complot la loolu du du débat mais nañu bañ a wax loo xam ne tey ëllëg wala ñu wax yoo xam ne tey ëllëg day kii quoi sama gars yi loolu moom lu may wax ngeen comprendre su ma nekkuma damay wax ni tu vois mais pour jàll message bi ne tey jii ko dugal kii mais je vais pas may ab may kii parce que fond que c'est tamit waaw maa